ayo bu borom température yi yu xaw a baas yeeg yemamaay yi ci première pàcc ak ñaareelu pàcc maa ngi lay di la dalal di la fay bu baax euh, <laughs> Faty nuyu sama naataango yi si plateau bi mm. di nuyu également suñu mbokk téléspectateurs yi ñu xool euh, climat bi tey ci suba gi dafa xaw a dafa xaw a liw euh, ba tey mm. layu bi tamit wàcc na dans les environs dans la région de Dakar et ses environs mm. température yi ñu ngi tàmbalee nag tey 17 degrés 1 degré de plus la ñuy am Louga Diourbel Thiès Dakar et puis 18 degrés du côté de Saint-Louis mmh. Fatick Kaolack ensuite 19 dinañ ko am Sédhiou Ziguinchor mm. et puis température maximale bi toujours pour Kédougou mais est-ce euh, température bi wàcc na par rapport ak euh, ñetti fan yi passé on était à 25 24 degrés ñu ngi ci 23 degrés ci suba yi tey mm. jàll si après-midi bi tàngaay bi euh, mu ngi fii ba tey euh, ci intérieur dëkk bi c'est en légère baisse hein, les températures mais mm -hmm. il fait encore quand même euh, légèrement chaud. mais baal que Dakar. non euh, Dakar moom du moom du nangu du kii du suivre règle bi. jamais waaw jamais jamais jamais 27 degrés toujours <laughs> le, la plus basse température loolu dama koy expliquer à chaque fois on est bien ancré ci biir océan bi donc péexu géej gi day dal directement. donc Dakar ñoo koy gën a ressentir. Mhm. Saint-Louis tamit ci côte bi et puis Ziguinchor. toutes les régions euh, enfin toute euh, la côte sénégalaise dañuy ñooy gën a ressentir euh, fraîcheur fraîcheur bi wala liw bi. <laughs> buñ ci bëgg rek et puis intérieur dëkk bi moom comme c'est beaucoup plus loin. Okay. par rapport ak géej gi te moom. ngelaw armatan bi ngelaw bu tàng bi mooy dugg fii directement donc ces deux climats la ñuy am ci dëkk bi deux climats différents d'accord 39 degrés température maximale du côté de Matam aujourd'hui. Mmh. 38 Kédougou, 38 à Tambacounda et puis comme tu le dis Fati. Mmh. si il est dégagé la ñuy am et puis tout au sud euh, Kédougou et Kolda on aura quelques passages nuageux. qualité de l'air bi nag euh, dafa dégradé wu ñu ngi ci indice orange bi depuis démb. Mm-hmm. fii ak suba kaaraange gi jéem a euh, takk masque yi. Mhm. éviter de s'exposer tamit euh, en plein air loolu mooy tax ñuy mucc si loolu. marée haute 9 lañ ko nar am euh, et puis 22h1 minute marée basse 3h33 lañ ko nemmeeku woon on l'aura également à 15h37 minute. Euh, en de dialogue euh, islamo-chrétien. Mm. Euh, de, on, a, euh, on, commence le carême, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Ouais. Donc, durant tout le mois du carême, je vais en profiter pour, faire, euh, pour fêter euh, chaque saint. ci hmm. jour bu nekk donc tey c'est la ah. saint Gwénolé ñoom chrétiens yi ñoo aye donc dañ leen di may loolu. Macha Allah. donc euh, marée haute yi wax nañ ko. ñu mhm. jàll si euh, houle bi houle dangereuse sur toute la côte sénégalaise pêcheurs yi duma leen jox benn information si géej gi parce que ils ne sont vous pas censés dem nappi ji duma leen wax dara houle dangereuse donc restez à la maison. Mhm. mooy kaaraange gi ñu jàll si euh, wàllum. naaj bi. Mhm. Chérif. ma ne del fàtte ngeen naan répétition et pédagogie. la répétition et les pédagogies. mais su ma leen ko waxee est-ce que duñu jël yoonu géej gi dem loolu lay bañ. ils sont leen ko wax ils sont responsables quand même. <laughs> lever du soleil 7h26 <laughs> euh, est-ce que 7h26 jotaatul. Fati des na 3 minutes des na ñetti ñetti simili. coucher du soleil 19h18 euh, minutes lañ koy am tey incha allah. am na en attendant ngay dem di contempler lever du soleil. da euh, au lait wala café. non tey bàyyi <laughs> c'est raw def si meew. à tout à l'heure inchallah merci beaucoup Oumy Samb plaisir. ñu lay dalal ci météo bi euh, ak ni ñu koy defee euh, euh, léegi léegi Marcel Maroon sëñ Maroon.